Jia Djifite, Jia Djifite sama gars yi ah, Mister Shake la depuis les États-Unis rek ah, maa ngi New York gars yi tey dama ñëw rek dafa leen benn vidéo ci ndeysaan dama seetlu ne fan yi waa APR yi dañuy jooy rek quoi dañuy jooy ki Coura Macky la gis nga nu muy jooy nii xaar ma gën leen ko woon depuis ba Macky Sall ne daal dafa bàyyi du def troisième mandat dafa mel ne dëj bu mag mo am ci wa APR Marème fay tamit mu ngi wane nañ ko matrice gis ngeen kura makki mom lañ di wan ay photo ndaysan mi ngi joy ndax li makki Sall bayyi dina dina leen ci defal jangat xol len Marème xol len Marème Marème bo lako gisé xamné ndaysan ne fay mi oh vraiment demna waaw li moy fay moy jour bi makki Sall makki Sall jour bi mi def euh, annonce bi le troit makki Sall ne bàyyi naa Marème yëgu ko woon yëgu ko woon ndax moom ci permanence ba la nekkoon mi ngi woon euh, siège APR moom ak ñoom Kalif woon leen mën leen noon vidéo boobu sax dinaa leen ko woon xam nga moom ak ñoom kalifoon woon ndeysaan mu dem ci permanence ba euh, après ci la ci la fa jógee xam naa dañ ko woo ne ko Macky du def Marème xam naa bu mu des ay 30 minutes ci lañ ko woo mais xool leen kanamu Marème Faye

ils sont morts ils sont morts politiquement qui n'a que l'état muy jooy Qui li tax muy jooy parce que député là député lan ngay jooy bu la leera ne Macky Sall dem na te Macky Sall moo fi l'état keneen lu ngay parce que xam nañ ne Ousmane Sonko mu ngi waaj dal Sen kaw Fatou Tampi tamit woo nañ wane nañ ko muy jooy <coughs> xool Fatou Tampi Fatou Tampi wane nañ ko mu def vidéo di jooy di wax Macky Sall këpp nga suñu yalwaan ah ndeysaan li nak la lay wane fay woné né wa APR yi di wax né Macky Sall dafa woné grandeur dafa woné grandeur ndeysaan ah da fay woné né Macky Sall pression bi ko Ousmane Sonko tek motax mu bayyi mais du question grandeur ndax budé grandeur la lan motax tax ngeen di pur kon yéen joy len pour euh, Sénégal bu Macky Sall limu def lu bax la pour Sénégal da ngeen wara da ngeen wara contact mais li ngeen di da fay wone ne li yeen ah sonko mi ngi ñew sonko ngeen ragal Fatoumata futa Tampi dengge ko dengen ko xaaral dengge dégg nga Fatoumata Fouta Tampi dengge dengge dengen ko mi ngi joy dengge dégg ngeen. waaw. li so xam naa ne déggu leen bu baax mais gis nga mi ngi xas ministre yi mi ngi xas DG yi <coughs> gaa ngeen baal ma mi ngi leen di wax naan DG yi soxlawul ngeen di présenté wu. xam nga mu ngi naan DG yi soxlawul ngeen présenté wu xaaral ma jéem a xool ndax dina am yeneen vidéo yi leen wan mais lii daf daf leen di wan rek que que c'est la débandade c'est le c'est le sauve qui Euh, les, les, rats sont en train de quitter le navire, le navire Macky Sall qui a pris, euh, pris l'eau. C'est la panique. tiit nañu jaaxle nañu parce que xam nañ ne ñoom budul Macky Sall seen affaire du baax seen euh, seen ceeb dootul tooy moo tax gis nga leen ñoom ñëpp ñu ñu ngi jooy xaaral ma xool su ma defee Californie euh, euh, APR xëy na dinaa gis. Euh, jur boobu bañ fa nekkee di jooy ndeysaan euh, non non nono euh, réaction de Californie après le discours de Macky Sall voilà gis ngeen mi ngi nii gis ngeen fii la ñu nekkoon waaw Californie laa ko seetaanee woon. Ah, ma wan leen ma wan leen que jour boobu waa APR ñëpp a ngi jooy waaw daf leen dànk rek gars gis ngeen gis ngeen li may wax weddi gis bokk bokk ci. gis nga leen. gis nga permanence bi ah dégg gis nga Macky Sall la ñu wane noonu ci écran géant bi dégg nga waaw gis nga leen gis nga leen dafa mel ne dëj dafa mel ne dëj moo fa am dégg nga dégg nga dégg nga grande porte neexuñu dégg nga ndeysaan ah. waaw Marème Faye fii la ñëwoon tamit après mu rocceeku waaw dégg nga dégg nga ñu ngi wax jàmm ñu ngi wax ñu ngi wax la grande porte mais lan moo tax ngeen di jooy looloo jaaxal ni Karim gis nga boo xoolee kanem gi nga xam ne dafa triste waaw gis nga ñom ñep dañoo triste parce que xamnañ nañ ne sonko mi ngi ñew sonko mi ngi dal sen kaw malheureusement gisuma sax vidéo bi mais suma suma mënon gis euh, vidéo bi euh, mi téléphone su ma mënoon gis vidéo bi Marème fay fu mu duggé ci auto bi ndeysaan di dem mais garaawul de façon bu mu leen ko waxé war ngeen ma gëm jour boobu fay euh dañu démon ci permanence euh, APR ñuy waaj a célébrer ah waaye Marème Faye dafa mel lañ kaa jox coup de fil Marème Faye daal génn ba muy dem nag gars yi nee nañ boo xoolee kanamam rek boo xoolee kanam mu Marème Faye rek nga ñoom ci la xam ne Macky Sall du def troisième mandat xam nga waaw kanamu Marème Faye boobu moom laa leen wan sànq pour wan leen ne yéen waa Pastef Ousmane Sonko am na ndam ci Macky Sall loolu daf leen koy wan dam leen di wan ne Ousmane Sonko am na ndam ci Macky Sall ndax bu amuloon ndam ci makki Sall gis ngeen gis ngeen photo bi Ousmane Sonko bu amuloon ndam ci Macky Sall Marème Faye du mel ne ku am dëj xool leen kanamu Marème Faye xool leen kanamu Marème Faye mi ngi jooy mel ne ku am mu am ku am dëj te booy xool dëj la parce que ñoom dañoo dee politiquement léegi nag li ñu leen di wax mooy ngeen gëm yàlla ngeen joxe nguur gi parce que sinon waxuma la mort politique mais mort physique moy am ndax Sénégal tay bu tàkkee ñom ñi duñ ci mucc kenn du kenn du ci mucc xol xool xol xool ah député député buy jooy lan motax ngay joy Macky Sall def 3e mandat quoi kon ñun bu Macky Sall 3e mandat vraiment du bax Sénégal parce que ñi dañoo xiif ñi pareguñu pour joxe nguur gi Adama jour bobu ba mu génnee wax na aussi kontaanu Mati trois mom tamit néna dafa décourager won ba sax tok na lu yagg xolul YouTube sur internet le président Sonko nous avons koy wax jaaraama jaaraama ah jeexal nañu Macky Sall gëm mais ñun xam nañ ne yi du parce que nous du ñëw rek joxe nguur gi Macky ci ay la nek te Ousmane Sonko gisunu lu koy téré comme Ousmane Sonko waxé chaos indestructible chaos indestructible bi nak indescriptible C'est chaos indescriptible bu fekké Macky Sall dafa day ne dañuy xaar ba février. ñuy doog a def kaaw indescriptible day nax boppam ci parrainage yi ci août bii bu yóbbu ngeen pare fu ñu nee Ousmane Sonko du bokk xam leen ne dëkk bi day takk te bu ba Macky Sall dañ ko fi jëlee benn yoon ñun ñu noppal ko. balaa gars yi like leen partagé leen monsieur Cheikh la tu wax encore une fois prabo Ousmane Sonko yow yaa fexe Macky Sall du bokk waaye Macky mënul la tere bokk merci.